Mhm. Euh, discours u xalifa généraux yi waaw euh, appel bi ak Touba la ko jiitu ci waa woon fu ci nekk daal mhm. gis nañ fa ay discours yoo xam ni maanaam ñi ngi woote jàmm ba ci mhm. fii ci lew na seen Medina Baye maanaam discours jàmm gi daal bari na léegi Ousmane lan nga jàpp ni euh, moo waral Ousmane Sonko. fu mu jaar ñu ni ko jàmm jàmm ndax nitu xay la ndax dañ ko jàppee nitu xay wala lu xew waaw jàpp naa ne hmm. riir mi mu àndal Euh, moo tax ñuy wax xam nga change bu politiciens yëpp mhm. ñooy def discours bi violent politiciens yëpp ñoom ñëpp amul ñu ci pouvoir amul ñu ci opposition ñëpp ay def discours bi violent yaakaar opposition bi rek koy def ñëpp koy def depuis l'indépendance laa wax de mhm. amul politicien bu mas a nekk ci géew bi lu dul léeg-léeg mu tollu jamono yoo xam ne mhm. day wax kàddu yu rëy mais kàddu yooyu xam nga lu tax du garaaw mënu ko da ngay gis ko naan fii duñ ko nangu Macky Sall bu ko a def ñu déloosé ko ca pale ba. waaw ah. mënu ko ko moo tax. mënu ko moo tax du am benn influence. Sonko nag li muy wax da koo mën. Hmm. waaw moom bu xëyoon na xale yi génn leen. Hmm. catastrophe bu rëy mën naa am. doo seetlu léeg-léeg politicien wax lu mel ni li mu wax. mais bu ñu xëyee du am coow dëgg la. man jàpp naa ne Abdourahmane Diouf ni mu waxee Medina Baye. Hmm. bu ko Sonko waxee woon loolu débat national lay doon. day na mais dañuy jàpp ne. Euh. du am influence. Mm-hmm. la muy wax. Mm-hmm. du am jeexantal ci ñi koy déglu. d'accord loolu nag. wax yàlla moo koy def waaw. waaw te Sonko waxam dafa def jeexantal ci ñi koy déglu. Mm-hmm. heure bu génnee gis nga riir mi koy topp politiciens yëpp nga def nemmeeku tuur. mais moom bu demee ziyaara ji sax mu daanaka def fa embouteillage. léegi nag loolooy tax ñu ragal ni kii li muy wax mën naa nekk. mais politiciens yàgg naa def discours bu violent beneen bi ci des. waaw mooy jàmm mooy lan. lan jàmm cest jàmm. Hmm. mooy sécurité. Hmm. ndax ñu ngi ci sécurité. jàmm bu ñu ko doon traduire dëkk hmm. mooy ak dal ak sécurité loolu mooy jàmm. léegi nag mu des lan mooy sécurité ak lan mooy dal. waaw Chouaïbou yow tamit wax dëgg yàlla ñu ngi nekk ci nguur goo xam ne. bés bu yàlla sàkk am na ñoo xam ne heure bu ñu xëyee dañuy xalaat man ban heure laay dugg kaso. mais loolu normal dëgg la nit koo xam ne yow defoo dara yaa ngi toog di liggéey mais bés bu yàlla sàkk yaa ngi pare sa valise ne dinaa dem kaso lu tax damay dem kaso parce que d'accord ma ak ñi fi nekk mhm. loolu du jàmm te ñàkk d'accord gi da ñàkk ko d'accord ci violent da ngay wax rek sa sa wax rek ne d'accord mhm. d'accord ma yow sa sa buntu kaso mi ngi taxaw bare na ñoo xam ne tey ñi ngi ci kaso bi bokk ci parti Pastef kenn mun laa wax lu ñu def mhm. mais jàpp nañ leen ñi ngi ci kaso bi di xaar bésu àtte te xamugoo lu ñu def di ramas benn par benn man jàpp naa ne nag réew mu normal. Mhm. te ñu bëgg jàmm warul doxee noonu. kon jàmm ji foofu la waroon a dooree. ah la wax ak jëf. Mhm. dégg naa sax euh, Serigne Fallou daan na ci boole ak yéene. Mhm. nee na jàmm dañ koy yéene wax ko jëf ko. mu doog a daje oh. mais jàmm kenn du ko ñaan yàlla. mais dañ koy melowoo léegi nag jàpp naa ne. discours jàmm bi baax na. waaw mais nañ fexe di ko séddale ci ñaari côté yépp mooy opposition bi nañuy wax jàmm. mais nguur gi nay def jàmm. waaw parce que nag yow mi yor doole ji ku la neex jàpp. ku la neex tëj. Mhm. ku la neex faat. Mhm. te du mujj fen mais loolu bu yàggee da nga dajee koo xam ne bu melee ni yow fu ngeen jaar ci mbedd mi ngeen di mujj. Mhm. mais jàpp naa ne bu ñu fexee ba ñuy jooy noppi te waxuñu kiy dóor na bàyyi dóor yi jàmm daam de. ndax am na ñoo xam ni ku leen dóor ñu yuuxu. dëgg la waaw te ñi ëpp ci opposition bi yuuxu dong lañ mën. Uh-huh. mais nag ñi nga xam ne ñoo yore seen yar. Uh-huh. yore grenade yi yore fital yi yore kaso yi di tëjaate. Uh-huh. man jàpp naa ne bu ñu wàññee tëjaate bi. wàññi ni ñuy acharné woo ci kaw ñenn ñi. waaw wàññi injustice bi ñuy teg ci kaw nit ñi. lu bëri ci jàmm dinañ ko am changement. fi mu ne nii réew maa ngi ne tekk ñu ngi ci jàmm. dëgg la bu ñu yëkkatee yenn projet yi rek léegi ñàkk jàmm amaat. te loolu injustice lay waaw kon man jàpp naa ne jàmm ji bu doon téeméeri poñ. quatre-vingt-quinze yëpp. nguur gee ko yore. d'accord bu neexoon Macky Sall suba réew mi nekk ci fitna. Mhm. su ko neexee suba réew mi yëpp dal. d'accord moo tax man jàpp naa ne ñiy invité ci jàmm. Mhm. moom moo ci war a jiitu. mais ñu bari dañu ni amuñu information yu bari imam am que ni. Euh, jàmm ji ci ñaari wàll yëpp la ñu bari dañ ne dañoo sëgg seen nopp yéen kilifa yi mhm. ni leen kat waa ji ngeen di gis mu tudd Ousmane Sonko nitu xay la mhm. ay ñooñam ñooy saaga ci réseaux sociaux yi ay nangam ñooy nangam te barki dem dégg naa mu ni maa ngi waxaat kuy saaga bokkoo ci man ah, waaw ndax jàppoo ni kon yenn ci kilifa yi ñu baal ma ci ni ma ko waxee bu dee mhm, dafa kii est am nañ information waaw xam nga kilifa yi moom du information yi ni am yëpp la ñuy am ñoom loolu moom foog Facebook ak Telegram ak ne ci internet bi di tàppee di xool googu jot amuñu ko. dinañ leen indil ay xibaar. mu mhm. ngi dépendre ci ki leen di indil xibaar yan xibaar lañ leen indil te xam nga bu jamonoy dagg vidéo dafa xew. dëgg la nit mën naa dagg ay waxi jàmbur ñëw dégtal ko kilifa gi ne ko xoolal kii li mu waxati. kilifa gi man man mi daggal nañ ma ay vidéo barki démb. gis nga waaw léegi nag man jàpp naa ne ñiy informer kilifa yi. Mhm. souvent danañ fa yóbbu information yu faux. parce que mhm. man ni ma gisee Abdourahmane ni mu doon waxee ak Cheikh dafa mel ni ku ñëw di ko indil information yu bees. waaw te ni kilifa gi réagiré. Mhm. dafa mel ni dafa dégg lu bees mel ni ku jaaxle ci li mu wax. dégg naa di ko xool xoolu kii li mu koy wax bokkul ak moom li mu jàppoon ne noonu la demee. Mhm. réaction bi boo ko xoolee donte sax ni mu ko poussé man d' accord ma ci parce que kilifa tamit. waaw doo ko waaw kenn du ko poussé. ak di ko wax loo li nga bëgg mu wax ko mhm. sa sa copain la waxal ak moom dina nangu yooyu mënoon na ñàkk amul solo mais da nga yëg ne. yóbbul na ko information nag. Uh-huh. yóbbul na ko information ci xamal ko ne ko ñii di tajaate ci lu dul dara ñii di jaay doole ci lu dul dara ñii di rayaate ci lu dul dara ñii di nappaate ci lu dul dara foog ñu bàyyi nappaate boobu loolu moom discours bu dëggu la. Uh-huh. man jàpp naa ne ñoom bu ñu bàyyi woon loolu léegi jàmm am mais daal li wér mooy kilifa yi am na ñu fa yóbbu xibaar yoo xam ne. Uh-huh. ay xibaar yu foo la. loolu moom loo am la parce que ñun ñuy dund ci dëkk bi xam ni muy dundee. léeg-léeg nga dégg réaction boo xam ne da lay wér ne am na lu des. lu luñ fa yóbbuwul donte nag ñun niñ bëgg kilifa yi di réagir du demee noon de. Mhm. parce que bëgg kilifa gi génn rek dal ci kaw Macky Sall. Oh. Macky Sall tegal mbir mi ci yoon. ah kilifa defee noonu ah non non ñoom duñ defee ñoom buñ defee noonu bu réew mi tàkkee dañ ci am dañ ci am part de responsabilité bu mag a mag a mag. Mhm. parce que état bi fii mu toll. Mhm. ku waxal yàlla di nga xam ne majorité sénégal yi kontaan nañu. dëgg yàlla te loolu élection yi jàll yépp dañ ko wane majorité bi bu ñu kontaanwul am na tuuti lu ñu koy rusee mooy kilifa diine yi dañuy jàpp ne mhm. ñu ngi koy xaw a jàppale bis bu kilifa yi affiché woo ne ñoom seen yoon newul ci moom mhm. suñ ñëpp ah, ci mbedd mi leen jëm ah, kon kilifa diine yi ndëgër laayu président Macky Sall la ñoom dañuy jàpp ne bu ñu amee benn weddi wala benn mbañeel bu ñu fësal ci moom rek mhm. ba moytuwul askan wi day daal di ko exploité réew mi tàkk fa benn yoon déjà déggoo kaw Ousmane sonkoo tey waaw discours yu tàng bu ko defee mm-hmm. dan naan ko ku fi dee yaay responsable bi waaw waaw léegi loolu bu doon benn xalifa moo ko def nag su ëllëgee ñu ne xalifa bi mooy responsable parce que moo ne woon nit ñi génn leen ngeen xeex dëgg la saa à ñoom tamit loolu dinañ ci bàyyi xel ba dañuy jéem a mm-hmm. lu ñu mën mm-hmm. man su ma sañoon nit ñi danañ leen xaw a jéggal tuuti ab diir ñu xaw leen a nëbb sax yenn micro yi. d'accord ah, parce que jamono bii ñu toll. booy wax ak kilifa wax synthèse rek la war a wax instant bi mais direct. live toog ak sa kilifa di live fii réew mi toll. Hmm. ku mën na ko moytul sa kilifa. d'accord parce que réew mi dafa sensible fi ñu toll. dee ko bàyyi bu waxee ba pare. Hmm. ñu synthèsal ko mu wax li mu wax ñu génn ko yóbbu. d'accord.